da jëpp gi Cristiano Ronaldo wanewaat na boppam ci match bi Al Ahli doon football ak Al Hilal di équipe bu li nga xam ni wala boog Al Nasri ak di équipe bu Cristiano Ronaldo ak équipe bi la nga xam ne mooy équipe bu Edouard Mendy match ba nag métti woon na lool ndax bit ya bari na ndax lu toll ci juróom-ñaari bise am na ci match boobee ki la nga xam ne mooy Edou Doudou Mendy nag leen ko dugal ci ay bit bari na Sénégal daa témboo ak équipe bi di Mozambique match bu baaxul la gone Sénégalais yi Dif Safi jël na ak géttam préparé leen pour ñu mën a jëm ci championnat bi saison bi ñu dëgmal stade ba ngoog Al Hilal nag am na lu ñu leen doon rapproché loola danañ ci dikk ak euh, Edouard Mendy waa stade ba feesoon na dell à domicile Cristiano Ronaldo ak ñi mu àndal nag doon def euh, recevoir Al Ahli mu nekk match boo xam ne daanaka derby la doon pële ci Arabie Saoudi waaye nag match ba la mu mujje mooy ay yitti ay yitti yoo xam ne ñeenti bal ci ñett la ñu dóor équipe euh, Edouard Mendy Cristiano Ronaldo nag daanaka mooy l'homme du match ba ndax dugal na ñaari bit yoo xam ne bit yooyee tax na ab équipe ba mën a gañe moom gone gi mi ngi wéy di def ay njobbe fële ca Arabie Saoudi nag ñu gën ko fay bàyyi xel ndax bit yoo xam ni moom lay dugal ak na mu nekkee woon ca Europe ba léegi bàyyi ko mooy di fexe di dugal ay bit yoo xam ni yu décisif la fekk na booba saf yi ngeen gis ko noonu mu ni jonn taxaw nag daanaka def na tàggatoom gu mujj di waajal match bi nga xam ne nag moom lay amal ci weekend bi match boobee nag gone Barcelone yi ñu leen ciy xaar ah bu baax a baax nax gone yooyee victoire rek moom lañ leen di laaj sax bi nag defar équipe am boo xam ne boo am solo tey di neex ci ñëpp mooy kenn ku ci man doon ma nga fexe sa nekk Barcelone nekk juróomi at wala juróom-benn at moo waral contrat yi fay yokk di ko fa yokk-yokkee léeg-léeg nag di procès boo xam ne safee ko teg pour gone yoo xam ne dañuy yàgg ca Barcelone Sénégal ak ñi ànd ak euh, ki nga xam ni a euh, daanaka mooy méta euh, nga xam ne daanaka numéro 18 bi euh, danoo nërmeelu sax maanaam nërmeelu la gën a jige ndax mat si liñ leen def benn ak benn benn benn boobu nag bu ngeen déggee nërmeelu mooy dañ leen a fekk si ba pare ñu war a am taxawaay taxawaay boobee nag des bu baax a baax ak occasion yoo xam ni moom la ñuy rate waaye am nañ chance fii ñetti fan.